bismillahi rahmaani rahim salli ala xawsin wa xaysin wa xiyaas wa salliman yaaman mahabilab tiyaas maa ngi leen di nuyu bu baax euh, tey nuyu mbooleem mbokk yi may déglu ñëpp man la seexu naa loo moom sëriñ Ndaam Lo Ngaabu may nuyu kuy dégg sunu kàddu rek di ñaanal ñëpp jàmm di jiital ci ñaan googu seex Muhammadul Muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool tam ànd ak wér ba lim fas yéene liggéeyal sëriñ Touba lépp mu sottal ko te ñu ànd ko moom euh, li doonoon sama kàddu rek mooy coow yi am jamono ci ngaabu muy coow yoo xam ne fu nekk la ko nit di déggee yàlla dogal itam ñu am ci responsabilité ndax doonoo dëkk ci dëkk bi bokk ci njabootu dëkk bi itam am ay mbokk yu ñuy laaj jamono yii yëpp ay xew-xew yu am ci ngaabu kon nag jot nañu leeral sëkk euh, li xew ngaabu ak lu mu doon. ñu leen wax ni ngaa bu jàmm rek moo fi am ngaabu jàmm rek moo fi am xam naa daal lenn rek mooy yi nga xam ne moo waral coow yi muy ñu wute pas-pas rek moo waral coow yi te loolu yàgg naa am ci jamono ndax jamono joo gis rek kenn ku nekk ak la muy dund ndax ñu ñii di wax ak yéen Cheikh Ibrahima loo mii sunu maam jur sunu waajuru góor moo sañcoon dëkk bi mook xam Amsatu magam Cheikh Ibrahima Xalil mi nga xam ne moo nekk ngaabu itam moom ak man suñ ñaari bàyyee bokk benn bàyyi man mii di wax ak yéen am naa mag jigéen joo xam ne moom Cheikh Ibrahima Khalil ñoo bokk ndey bokk ak man bàyyi docteur Mouhamed Ahmed Lo moom ñuy wax baayam ak sama maam ñoo bokk ndey ak bàyyi sëñ Modou Lo Issa mii baayam ak Cheikh Ibrahima Lo mii sama maam ñoo bokk ndey ak bàyyi kon lépp rek ci mbokk gi la. xanaa di jubbanti ay mbokk yoo xam ne bi ma seetaani discours yi ñu doon defal ñoom ñooñu ca dakaar jubbanti ay yoo xam ne la wax. dañ damaa xamul fu ñu ko teg ndax dañoo wax ne mboolem taalu jàng ba nga xamee nii moom la sëriñ tuubaa defoon ca Ngaabu Cheikh Ibrahima Khalil loo moo fa nekk dëgg la Cheikh Ibrahima Khalil mi ngi liggéey liggéey bu am solo ci alxuraan ci Ngaabu te ñëpp nangul ko waaye taalu jàng yooyu nag taalu jàng yu takku la ndax man mii daara ji ma jàngee alxuraan Cheikh Ibrahima Khalil la tudd te bokkut ak Cheikh Ibrahima Khalil mii ndax Cheikh Ibrahima Khalil mii sëñ Abdou Karim Lo moom Cheikh Ibrahima loo mooy waajuram. am na keneen ku ñuy wax sëriñ Mouhamadou Abdourahmane Lo doomi sëriñ Daam Lo fii may waxee yow rek taxawal na daara joo xam ne ngaabu ñetti téeméeri donga ña ngi fay jàngee alxuraan te kenn du fay weer lépp seen lépp moo ko yor mu ngi tabaxaat daara joo xam ne lu mu gàtt gàtt juróomi téeméer juróom benn téeméeri donga wala juróomi téeméeri donga muy 600 donga wala 500 donga dana ko jël kon xam nga liggéeyub sëriñ Touba yàgg na ngaabu moo tax nit ki ñaare bu nekkee ci barab te maîtriser wu la muy wax ah, di bàyyi xel bu baax la muy wax da ci am solo bu baax a baax Euh, docteur Mouhamed Ahmad loo sunu waajur la maa ngi dégg ay kàddoom léegi mu wax ne euh, Touba moom ku nu fa waxoon génnal kilifa nga bu nu waxoon génnal ñaar ñett duñ ko dégg duñ soxla sax ku nu jox alal jënd fañ ci kër ya waaye Cheikh Ibrahima moom kenn mënu koo génne ngaabu ñu ñaanuñ yàlla mukk ñu génn docteur Ahmed ñaanuñ yàlla mu génn Touba Cheikh Ibrahima ñaanuñ yàlla mu génn ngaabu ndax ci ngaabu lañ bokk ak Touba waaye nag ab barab boo fa nekkee te barab ba lépp aju ci Serigne Touba. muy ngaabu ak Touba lépp dafa aju ci sëriñ Touba ndax tey jii fii ñu toog ji ngaabu bu sëñ Muntaxa waxoon ni ngaabu damaa soxla mool ya nekk ci kër yi ñu dindi ko sax andil ma incha allahu dañ koy dindi andil ko ndax ngaabu ak taalibi rek fi am sunu maam ya moom lañ xam sunu baay ya moom lañ xam kon mbooleem ñi ci àll bi li tax ma def audio bii dafa am ay mbokk yu bari yu may woo depuis bi xew-xew bi amee ba léegi tey jii itam ay mbokk yu ma waat ca Brésil di ma laaj naa ma ngaabu lu fa xewoon ngaabu lu fa xewoon nangam ndax ndaje mi ñuy def ndakaaru nangam nangam moo tax naa ma ne naa leeral ngir ñëpp yëgandoo ko xam ne ngaabu daal dëkku Serigne Touba la taalibe Serigne Touba itam moo fa nekk ña wuutee pas-pas itam ñoom la ñeel waaye ñun de sunu lépp ak sunu ñëpp ci Serigne Touba la jeex ba faaw ñu ngi ñaanal nag yàlla defal ñëpp jàmm yàlla defal ñëpp sutura yàlla defal ñëpp tawféex ndax Cheikh Ibrahima Khalil moomu de mag la boo woon tey yónni ma tey jii faaw ma dem docteur Ahmed Lo moom sama bàyyi la ba ma woon yónni ma tey ji faaw ma dem waaye pas-pas nag ak bëgg ak ngëm kenn du ca laal nit ndax ku ca laal nit mbaa nga wax ci ni dara faaw ngeen di jote pas-pasu nit kenn du ko foye te ñun de amul lu du sëriñ Touba te ñoom ñooñu ñoom Cheikh Ibrahima Khalil ñoom docteur Ahmed Lo Lo ñooñu ci ngërëmal Serigne Touba lañ juddoo ndax baayam ci sëñ Modou Lo Issa kenn la woon ci Cheikhul Khadim Serigne Ibrahima Khalil moom itam baayam Cheikh Abdou Khadir Serigne Daam sama waaju nettali na ma ne waroon naa julli ci àjjuma Touba far saxaar gi ko. ba mu ñëwee toog ci raay bi xaar ab diir daal di jàng jës ba mu waaxi ba mu xaddimaat fii ci ngaabu ba mu demee ba am demukaay ba dem dafa dem jox sëñ Fallou Mbacke loxo sëñ Fallou ne ko ab duwaaw góor dégg naa la nga wax. te ci ngaabu la jàngi ges boobu mu waaxi ba mu xaddimaat ci altum ngaabu bi ba mu demee jox sëñ Fallou loxo sëñ Fallou ne ko dégg naa la nga wax kon kooku ak muritam ñëpp xam nañ ko kon nag nañu xam ne mbokk yi muy ñi aju ci tarixatu muridiya ñi aju ci beneen jamaaxa bu mu doon dañu xam ne pas-pasu jàmbur kenn du ko foyee te ñun de suñ lépp dañ koo jël jox ko Serigne Touba tab taalibeeb jàmbur kat boo koy boo boo booy laal booy laal kilifaam buy fayu ab sangam mën na ko bañ a yëg kon nag nañu fonkaat ñëpp fonkaat war ma yëpp fonkaat taalibe gi nu booleeg Serigne Touba koo xam ne bokk nga ci lenn ba ci yàgg doyatu la nga dem ca leneen yow la ñeel. waaye ñun lii ñu bokk de muy Serigne Touba ci leen fas yéenee dund ci leen fas yéenee dee du doonoo fekk suñuy bàyyi suñuy maam nekk ci nañ ca nekk di déedéet waaye Serigne Touba ci boppam moo nu doy moo nu doy tey moo nu doy bu ëllëgee itam maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lii daa doon ab leeral boo xam ne mënuma koo bañ a ñàkk def bokk ak barab bi waa ngaabu bokk ak barab bi njabootu ngaabu gépp itam waaye ñuy xam ne daal ngaabu daal li fi nekk mooy taalibeeg Serigne Touba lan taalibe Serigne Touba lan dëkk boo gis nag am na ñu fa nekk ñoo xam ne ñu wutee pas-pas lan waaye ku wutee pas-pas daal ca moom la yemaat waaye ñun ngaabu moom suñu lépp Serigne Touba la wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.